ak góor-góorlu mooy maye barke sëñ Bachirou Jenn mii toog maamam sëriñ Baara Jenn moo waxoon ne sëñ Tuubaa waxoon ne ko barke ñett la bi nga sàcc bi nga àbb bi nga liggéey <clears throat> mu ne bi nga sàcc dana la dab duma la nungu ko bi nga àbb bu boroom soxlaa nga ñàkk bi nga liggéey yaa ngi ba ba Cheikh Amadou Lamine Bara nag dafa liggéey ba am barkeem bu ko wër boo xam ne duutu tàggoog moom mukk te Serigne Touba nee na moom barkeem du jeex landi na yaatu toll ni suñ boroom te du fi jóg kon ndaw ñi nañ leen gën a yar leen dellu ca pas-pas mag ña dundal daaray tërbiye yi jàngal nit ñi lu widd lu ne dana am luñ fa teg espace bu widd gaa yi wut luñ fa monte kon nañ dundalaat dari terbi, yarat ndaw ñi jàngal leen boo ko defee déviation du am buki muro deru bëy tey ruur duñu am fuñ jaar ñi yàq pas-pas yi nit ñi duñu am fuñ jaar ñi bëgg a nit ñi jëmee leen ci yeneen pas-pas yu yees duñu am fuñ jaar jamono boo xam ne nag gottee xaste wax lu ñaaw ku la jobbal dàq wax lu ñaaw mooy star moom lañ nome moo baax loolu ak bon la gu tasaaroo ci àdduna bi te kenn xamul fu mu jëm déjjër li gi am ci àdduna nga xam ne lu ma neex laay def awma ku ma faale complexé te léegi communication dafa gën a yàq bu jëkk information pour mu génn jafe na léegi kenn ku ne sa journaliste su bopp nga yaa ngeeg sa portable mën naa caméra mën naa photo mën naa enregistré loo gis filmé lu la neex jàllale loo dégg commentaire loolay waral saaga koo wërta saaga xas koo wërta xas wax lu ñaaw loo wërta wax lu ñaaw sëñ Tuubaa nag nee na woon bu jamono soppi ko maa ngi leen di digal juróom jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la bàyyi wëndeelu bi te toog tey liggéey Cheikh Issa Dieng radiyallahu taala anhu de sëñ Tuubaa nee na ko woon Issa Dieng ba amoo taalibe bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo xamee wàcc ko ku dul liggéey néexut a dimbali maam Cerno borom daaru daana wax ne ku dul liggéey du am dara ko mu dara du toog ku toogul du jaamu yàlla ku jaamul yàlla dem àjjana kon jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la bëgg lu giijal tax na ñu bari jaay seen ngor jaay seen diine bari na koo dégg muy wax naqaru yàlla taxu koy wax naqaru yonent bi taxu koo wax doon ko na dalay junj ne ci sunna laa nekk wala diine laa nekk bëgg dund képp a ko jàpp barke bii yàlla defal njabootu sëñ Tuubaa gii nag comme naqari karuk saxaar la ci tax a wannub xeej du la ci tax a mucc sëlmoo asib du la ci tax a mucc dugg ci bàmmeel du la tax mucc ndax du tee bamba bamba tey riir la lay arrangé bañ judd waaye ku judd yori nopp yori gët barkeb sëñ Tuubaa bi day gën di wasaaroo njabootam gi gën di tedd ndax ba muy liggéey moom keppa dem moom dong bàyyi këram bàyyi njabootam ku suur yi xallat wala ahlu an yi tafaaraxat li maddahi ladi anhul madiyu xasiiru ba yàlla fayee ko lii ko faye ay propagande ay financement yàq derub jaam ñi ci àll bi ngir bëgg loo mus mayewu ko sëñ Tuubaa dafa génn liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko faw yàlla jëme ko ci njabootam gi kum naqari amoo pexe kum naqari amoo pexe kon nag lu mat a bàyyi xele ngi noonu riir mi bari na yëngu mi bari na waaye nun am nañu roy téef am nañu roy téef foo dem fekk nga fa koo mën a roy ci jikko ak jëf ak melokaan ak doxi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mii liggéeyal na Sëriñ Tuubaa topp njabootu sëriñ Touba gi kenn ku nekk bari na ci ñoo xam ne melokaan ba ñu koy seereel mooy ak murid sadix te murid sadix yombul kon nañuy siyaare ji tey joxe addiye bu nu jàppee dox baax na koo dégg mu naan waroo amub sëriñ lijjanti na ab sëriñ te ab mën a lu ko tus nun nag sunub sëriñ la sëñ Fallou waxoon sëñ Fallou dane woon sëñ Touba murid yaa ngi lay sant ngir mënoon ngaa ñëw ba dem ñu ñëw baa nga ñëw baa ñu ñëw ba dem nga ñëw baa ñu fekkente luñ la topp mën a ko am na ci lu gën a rëy mooy sant gi am na lu ca dolliku mooy ànd ku xam fu mu jëm xam fam la jëmee man xam naa fi ma jëm xam naa fi ma leen jëmee sëñ Tuubaa xam na fi mu jëm xam na fi mu nu jëme waaye kenn war a topp kenn nag kenn mënul kenn dara lu tax kenn mënalul kenn dara koo xam ne boo koy saaga da ngay nëbbutu boo ko tooñee dee li ngaa xam mënal na la dara wala mënuloo da boo ko bëggee mucc boo ko liggéeyee la tedd mosoo dégg kenn ku ne liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax a dellu ginnaaw wala liggéeyal sëñ Tuubaa tax samay bokk raw ma mës ta am te du am kon nag ku topp réseaux sociaux yi topp gaa yi dégagé boroom xol bu jeex du wax jàmm boroom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm nit ki bu fekkee mënta ami tool kenn takk batsam du jëm si ci mbooloo ñu koy sikaral kenn du siyaare bàmmeelu maamam ak bàyyam la xamee su fees ko suul kum santub liggéey nga lan kum yónni nga bañ mbooloo topp ko day defee ne pexe mën na koo maye tax ñu yor seen coow lu bari yeeg seen wax ji sunna sunna sunna sunna nangam nangam di wax sunna ba nopp tey fen ana sa sunna fen a gën a bon ci bakkaar nga taxaw ci minbar di fen yow respecté woo jumaa respecté woo ajjuma respecté woo jullit ñi respecté woo yàlla kon nañ xam li ñuy wax ab murit day dëgër bopp ci seen Touba. gars yi kun dëwyee ba yóbbu la feneen sawara soos ñu lay jiiñ ca leen la jëmee ndax na la yóbbu iñaam ak bañ koo wër te bañ te bañ koo wër bañ alkande rek la lay joon bëgg gars yi yàlla yi mooy di gën a rëy ca jaamu yàlla maa tahabada mutahabidun bi akzari min tahabubin ila ila taala li anna mahabada ila taala daliu ala mahabada la azza wa jalla maa ngi leen di baloo